waaw kon asalaamaaleykum mbokk yi comme ni leen ko baaxoon a waxee rek euh, niñ ko toppoon ci suba ba léegi ci dëkku bërëb bu teel bi nga xam ne moo di Mbacke Kajoor ci màggalu Mbacke Kajoor fii ñu nekk nii tey moo di armée li Mbacke Kajoor kon niñ ko waxee ci suba nii bëgg nañ lépp loo xam ni daal lu aju ci barab bi la ak fu ñu war a siyaare danañ fa ñëw ànd koog Madiyana TV ngir ko mbokki taalibe yëpp tey nag ñu ngi fii ci barab yi Mbacke Kajoor maanaam mooy armée li barab bii ñu taxaw nag lenn la ci kilifa yi nga xam ni bànqaas yu nekkoon nañ ci Mbàkke Kajoor muy sëñ Adama Guèye te ñu yàgg dégg ci histoire ni moo bokk na ci njëkk a jébbalu ci yoonu murit fii nga gis ñu taxaw fi nii moo di bërëbam muy sëñ Adama Guèye moom moo njëkk a jébbalu ci sëñ Tuubaa bu ko defee nag nañ ko baaxoon def ci suba rek sëñ Abibu Mbàkke la ñu àndoon nga xam ne yu ci bari moom moo ñu doon defal ay leeral bu ko defee sëñ Abibu Mbàkke moomu lañ bëgg a jox kàddu gi rek mu wax ci ay kaddu ci adam gi mi nga xamni mo na ci barab bi tay ñu ko xiaré ak nakal demé won fi ci mbakajor ak nakal jeblu won ci serigne mi kon serigne abibu ñu lay nuyu ci la wax bismillah A'udzu billahi samial alim minash shaitanir rajim <clears throat> Bismillahir rahmanir rahim ginaaw bonu sante yalla jullu ci yalla bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi sante seigne touba baax comme niñ ko waxal ci suba rek barab bii ñu taxaw barab mooy barabu Cheikh Adama Gueye Cheikh Adama Gueye nag bokkoon na ci mag ñi nga xam ne ñoo njëkk a ci sëriñ bi nga xam ne bi mu jébbalu ci sëriñ bi boobu daanaka mag ñi fi nekkoon néewoon nañ lool waaye Cheikh Adama Gueye njëkk muy jébbalu ci Sëriñ Tuubaa nit ku baax la woon du borom pas-pas di nitu yàlla di nit ko ragal yàlla di nit ku baax koo xam ne jaamukatu yàlla bu kawe la woon ni ko histoire di nettalee rek boo xoolee jamono yonent ñi ñëkko na gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy mag ñi nga xamantene yagoon nañ di and ak rasulullah waye seigne touba yit ñi nga xamne ñu andon ak mom kenn tay ñu taxaw ci barab bi ku mel Cheikh Adama Gueye nga xamne ñëkk muy and ak seigne Touba danaka man na ne man na yëlif jamono ndax nekkon na ko xamantene lepp lo xamne yalla ne koy maye maye na ko te mu nekkon sang bu baax diko tedd diko nekkon ko xamne ko jubóon ak borom tabaaraka taala la Cheikh Adama moom nag wax nañ ne bokk na ci mag ñi nga xam ne ñoo njëkk a jébbalu ci sëriñ bi fii ci Mbacke Kajoor wax nañ ne jébbalu maam Cheikh Ibrahima Fall sax bi ma bi maam Cheikh bi maam Cheikh di jébbalu ci sëriñ bi wax nañ ne mi ngi jaare ca loxob ba mu ànd ko ci Sëriñ Touba maam Cheikh gisee Sëriñ Touba jébbalu ci Cheikh Ahmadou kon loolu mi ngi jaar ci loxob Cheikh Adama Gueye Cheikh Adama Gueye nag tey ñi ngi ci baram bu sell bii nga xam tey fii ko denc te Sëriñ Touba waxoon na ne Cheikh Adama Gueye bu ñu ko dencee ci biir suuf li feeg ñeent fukki at lu fi waay ñaan mu nangu te loolu kenn ko na xam ne lu wér-wér la moo tax kon tey barab bi ñu taxaw lu fi waay ñaan boo ko amul rek ci yow la ak sa pas-pas waaye kun gi ba mi ngi fi te nit yàgg na fee ñëw di ñaan yàlla yàlla di ko may kun gi kun gi nag ba tey ji la fi ba tey ji la fi gën a nekk kon nag barab bii nañu xam ne barab bu siyaar la barab bu màgg la barab bu tedd la barab la boo xam ne ku fi teg sa tànk am naa yaakaar ne suñu borom na laa jéggal lu fi waay ñaan it yàlla mën na la kon nag nu mbokk taalib yëpp xam ne tey fii mooy barabu Cheikh Adama gi mi ànd nag suñ Tuubaa bokkoon ci saxaaba yi Cheikh Ahmadou yi kon tey nitu yàlla wala waliyu wa ila wala yonent du jug mukk lu dul yàlla da ko wala ay kër yu dëgër kenn yi nag mooy góor yàlla yi àndoon ak sëriñ ndax kenn ku ne xam ne ne Mbàkke Kajoor yaakaar naa ne bi fi suñ Tuubaa yi nekk jafe woon na lool tey jii lii fi am amu fi woon waaye ba Cheikh Adama gi da jébal suñ Tuubaa yaakaar naa ne Mbàkke Kajoor boobu melul nii te bi Cheikh Adama gi jébal suñ Tuubaa yi nag fekkoon na fa ay nit ndax kenn ku ne xam ne Seydina Omar bi mu jébal ci lislaam comme comme euh, niñ koy leeralee Seydina Omar bi mu jébbalu ci sëriñ bi ci rasulullahi fekkoon na fa ay góor yàlla waaye dañuy wax ne moom moo nekk moom moo dikk nekk ñeen fukkeelu góor yàlla yi waaye maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëw di jébbalu nga xam ne ci loxob Cheikh Adama Guèye la jaaree wax na ne moo nekkoon ñeen fukkeelu góor yàlla yi yi nga xam ne ñoo yi nga xam ne ñoo ñoo jébbalu ci sëriñ bi li nak bi ngeen gisee ñu di ko leeral mooy dañ ko tay dañu dik fi ci barabu Cheikh Adama ci bisu magal sëñ Baara gi nga xam ne mooy juddug euh, maanaam mooy gën ak àddunaam ak juddom lañ boole di ko fi ci barab bi tax ñuy leeral li tay ji waye nañ xam fi dal barab lu barkel bo xam dafa ñaan bok amul rek ci yaw la aduna nak wala pas-pas nak moy tax a ci do aadama nit ki man na fe ñom ñaan fi téeméeri junni ñaan ta du jariñu loolu la kay waral moy ñak pas-pas pas-pas nak lepp lo xam commencé ko du ko eggalee kon na nit ñi xam ne pas-pas mooy lépp ci àdduna ku fi ñëw ku ne indi fi pas-pas ak gëm-gëm bu dëgër loo fi ñaan yàlla mën na la defal te yow miy ñëw bàyyi xel ne la nga war a jiital mooy ak laab ak sell mënoo dem ci nitu yàlla ba noppi taq wala nga dem ci nitu yàlla ba noppi ragal yàlla nekkul ci yow wala naafeq wala ñaan wala yooyu yëpp ne ci yow nga bëgg dem ne ñaan ak nitu yàlla ga lu mu baax baax soo fa ñaan yàlla yàlla nangul kon doomu yoo xam ne ñu fi fekk ay waaj waajin boo xam ne dafay mel ne ku jàkkaarloo ku tedd ki ndax ñii kat loxoy ne lu fi ñaan rek su ko amul ci leer na am na solo kon dégg ngeen ko mbokk taalibe bi ni ko sëñ Abibu waxee Adama Gueye mi nga xam ne bokkoon na ci lenn ci mag ñi nekkoon ci keppaaruk sëriñ bi